li xew tey altine lañu tollu toll balaa 9 di jot ñu jot ab huissier bu fi yegg si huissier bi ne ay gendarme ñoo ko accompagner man fekk na xëy na bokk naa ci responsable yi nekk fu heure bii nii boobu heure heure boobu noonu maa ngi fi ak peut-être ñeneen mais ci man lañ leen njëkk orienté bi ma ñëwee ñu ne ma ndax yëg nga li xew ma ne leen mais lan moo xew yëguma gendarme bi ku jigéen defe naa moom moo jiite peloton bi nekkoon huissier bi expliqué ko ci la ma waaj expliqué ne en fait dañoo ñëw pour def si inventaire inventaire u matériel bi ci biir kër gi ci suuf rez-de-chaussée bi ngeen jóge sànq cinquième parce que yaa encore des dispositifs là donc ci kaw loolu ma ne leen au moins donc kon seen liggéey ngeen mën a def man je suis responsable je la rédaction maa ngi doon préparer réunion de rédaction j'ai abusé kii de droit et c'est comme ça que yeneen responsable également ñëw ñi leen war a accompagner accompagner leen def nañu seen liggéey te résistance amul te ci loolu sax laay xamee ne huissier bi bi muy ñëw lan la doon sóoraale ba war a mën a tax ngay dem gendarmerie xëy na benn wala ñaar doyoon na mais lu fi wàcc ci gendarme ak ci dispositif pour man looloo ma ci xaw a jaaxal parce que benn nee nañ ma oto yi dafa mel ni dañ leen a xawoon a camoufler sax ci biir koñ bi làq leen ginnaaw ga ñu yóbbu leen ci côté VDN bi am ñu nekk fii ci suuf am ñu nekk ci biir di accompagner équipe bu huissier bi ak peut-être ses lan la doon séentu bu dee résistance la doon xaar man ma ne ñi fi nekk ci biir kër gi ils sont assez dañoo jóge suñu kër ci jàmm bëgg yendu ci jàmm liggéey bëgg tam ñibbiwaat ci suñu njaboot ci jàmm donc bu dee résistance lañ doon séentu ñu jàmmaarloog ñoom wala indi leen jafe-jafe gisuma ko fi ay nit ñu responsable ñoo fi nekk war a mën a def seen liggéey donc ñoom bi ñu def seen liggéey également ñun en tant que journaliste en tant que travailleur ñun tam ñu ngi def suñu liggéey te suñu liggéey lan la mooy prendre l'opinion à témoin jël antenne bi édition spéciale yéen xam ngeen ko expliquer nit ñi lan moo xew à l'instant lan moo xew ci biir kër gi lu ko waral ci liñ ci xam ak liñ ci mën a wax ak lépp loo xam ne nit ñi war nañ ko cee mën a comprendre donc suñu liggéey également def nañ ko côté boobu ñoom également xataluñ leen bund xataluñ leen terewuñ leen également ñu def seen i seen i liggéey. làkk doom dóor doom bo de toute façon jàpp nañu ne dossier bi ñëpp xam nañu politique bi ci lalu parce que Bougane Gueye Dany la ñuy song moom c'est un acteur politique de surcroît mi ngi ci opposition bi mais buñ ko laalee également war a jaar ci Euh, ci ay jumtukaay yoo xam ne teg na ko ci yëfi boppam ba ay nit di ci suturlu di ci liggéey di am lu ñuy suturaale seen njaboot di ko yóbbu seen i kër dafay mel ni également loolu la ñu bëgg na saxal ndax Bougane Gueye Dany mooy objectif bi wala dee média mooy objectif bi man ma sañ a xalaat ne bu dee dañoo xalaat ne ngir dee média ba ñu couvrir élection locale yi di ñëw je pense que ñu ngi juum bu dee dañoo xalaat ne war nañoo mën a tiital presse bi jaare ko ci des médias parce que bu ñu amee des médias peut-être yeneen organes yeneen groupe mën nañoo tiit également je pense également ñu ngi def fausse route ñu ngi juum li ci des nag mooy comme yëf fi demee na noonu ñun ay liggéeykat lañu te pare nañu pour défendre suñu outil de travail lu ñu yoon may dinañ ko jël ak côté également de notre direction parce que xam nañu ne bu ñu laalee waa ji Bougane laa mën a wax ñun également dañuy xosiwaale parce que suñu outil de travail la ñu attaqué ku ñëw def si inventaire ba ci chaise yi gën a tuuti ba ci lampe yi fi nekk ba ci écran télé yi fi nekk ak yeneen ak yeneen def inventaire bi après finalité bi mooy lan est-ce que dañuy ñëw nangu matériel bi pour dem jaay ko tëj kër gi loolu ñun également bokk bon mënuñu ko seetaan ñu ko seetaan waaw